barki euh maa ngi gis euh, suma waa nga xamné euh nga xamné je le respecte beaucoup moy monsieur Idrissa Seck nga xamné mom mom moom muusam gi je pense que muusam gi mi ngi koy bëgg doflo parce que bo foogee ne ya gëna a ñëpp di nga dem ba muus muusal la ñu mujj laa muusal dugg la ci muusal la ba nga jeex c'est un grand intellectuel je le respecte beaucoup monsieur Seck mais ma ne président Macky Sall góor gum góor président Macky Sall ah gëm-gëm la gëm ba jindi la te pourtant ba mu lay teg ci place boobu noonu ñu ko gën a ñu ko gën a mérito mi ngi fa fuuf ñu créé APR def ci lu ne mi ngi fa mais daf la jël teg la pour ngeen ligue Sénégal kon wiiri wiiri geeg jaari ndaari ji je pense que jaru ko waxal nga verte wala nga jaune wala nga rouge ñu xool nombel waaye keroog wiiri wiiri jaari ndaari nii ak lii fexe dàqoo génne woo kenn xamul foo bokk kenn xamul loo loolu moo la daloon en 2008 ba nga yàqule ci lépp donc euh, boo président Macky Sall nag bi ngi toog fi nga toog président Macky Sall ba mu gagné élection àndul ak yow président Macky Sall gagné na lu ne te àndul ak yow ba mu la jëlee sa dafa daanu ba mu la jëlee sa dafa daanu kon xam nga kon xam ne bu la jëlee liggéey Sénégal a tax aussi yow citoyen nga am nga droit génn wax dëgg yàlla ne de da nga def déposer candidature mais nga wax bu leer moo gën kenn xamul fii li ngay def amul parce que si am nga droit génn ne man citoyen parce que président Abdoulaye la yàgg na ko def président Abdoulaye Wade yàgg na dugg ci gouvernement Abdou Diouf toog ba si yàgg génn dafa élection ak moom waaye ñoom Mbor mi ci biir. minci man Dengue, nga nañu leral rek lu xew wax dama ne dama ne su na jaune mais su dafa dem dem élection na to na wax limu bëgg ne as jakkalo asken wi ne wax jakkalo président Macky Sall gor comme président Mal dem accompagner pour ñu président franchement ànd naa yow pour ñu liggéey Sénégal bëggoon na la jàppale way nak man tamit lu mbëtt bëgg la barbu légui nak nag joxone sa ndomo tànk ko tànk gaay yi na ko jox na la ko joxoon ko la neex ma ngi dem Sénégal kenn du ko ci méré waaye nek ci biir nek ci biti di jaay nit ñi bokku muus te nak Idrissa Seck képp ku la aj ku la ajé ko sut ñu la ñu la ajé ngi fi dé ñu la ajé ngi fi kon ñu ngi ñaan nga delu sa xel nga def discours boo xam ne moom la Sénégalais yi mën a dégg def discours boo xam ne franchement moom la ñu mën a dégg moo gën nekk ci biir wala nekk ci biir kenn xamul fi nga bokk ñi ñu naan la réeroo ak président Macky Sall ñi naan nangam déedéet président Macky Sall mi ngi toog fi mu toog président Macky Sall mi ay lier naam mi ngi toog donc ñu ngi ñaan nga verte rek wala nga jaune